ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey mardi 14 juillet 2020 ñu indiwaatal leen seen xibaaru revue de presse ñu dem jëli suñu page de pub daal di ñëwaat.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 isiobati point com et isiobati demee mbokk yi ñoo ko déggandoo bu ko defee rek dañ koy daal di ubbee ak journal record mu daal di xëy di fësal ci xëtam bu njëkk Edouard Mendy ginnaaw bañ ko recruter ca club bu ren ba suñu joon yàlla tey jii mi ngi toll ci un an liñ ko recruter nag deux milliards de francs CFA dong la ba tax na nag journal bi daal di xëy def ab point d'exclamation naan Edouard Mendy jamono ji war naa fayee ko lu toll ci six milliards de francs CFA maanaam daal deux milliards yi nga xamante ni moom lañ koy fay ca club bu ren nekk na loo xamante ne xeeb nañ ko lool. tey ci biir journal record la ñuy daal di desani ak yéen siège de la Ligue de Dakar la ñu wax foofu nag waa fédération sénégalaise de football daal di nañ koy tekk loxo récupérer li nga xamante ni moom moo di immeuble boobee waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon gérer euh, siège du Ligue de Dakar bi nag parewuñu benn yoon pour nangu loolee rawatina ci jamono ji nga xamante ni dañoo nekk ci jamono jàngoroy coronavirus xamaguñu fan la ñuy déplacer li nga xamante ni moom moo di siège bi ba tey journal record comme ni ngeen ko gisee rek ci deux ans na moom di wax ci football di wax ci làmb tey nag daal di ne fësal mauvaise nouvelle pour ñu doon xaar combat Eumeu Sène ak Bombardier ginnaaw bañ ko defee à la une ci journaux yëpp daal ni combat ak Eumeu seen daal di nañ koy taxawal ku ko tëgg ñu daal ni Gaston Mbengue tey nag journal record daal di ne xëy di ko wedde ba mu set wecc nee na kaw Bombardier nee na ñu yëguñu sax ni combat boobee ñi ñaa ngi koy waxtaanee bañ naan fësale nañ ko maanaam daal. Bombardier signéegul benn contrat moom ak Gaston wala sax waxuñu lu ci jëm loolu la camp bu B52 de Mbour euh, daal wax mu nekk loo xamante ni nag gëm naa ne déception lay doon ci amateur yi nga xamante ni ñoom ñoo kontaan noonu bay xaar combat boobee naan ban dat la war a doon ba tey ci wàllum làmb ci journal record la ñu daal di desani ak yéen combat bi nga xamante ni moom moo war a dox ci diggante rëg-rëg ak guy gi jamono ji nag moom moo nekk priorité waa GFM ba tax na combat Sa ak Garga Mbossé Euh, dañ ko daal di pause ba ci kanam ba finaliser combat Reug Reug ak Gris doo comme ni ko journalu record bi daal di fësalee bu ko defee rek ñu daal di jàlleen ci journalu suñu làmb suñu làmb nag daal di nay xëy di la ci xëtam gu njëkk Euh, ki nga xamante ni moom moo di guy gi ak rëg-rëg seen combat comme ni ñu ko waxee rek ñoo ngi ci dernier réglage yi jamono ji maanaam réglage yi nga xamante ni moom moo mujj pour ñu taxawal boobee combat ginnaaw ba rëg-rëg signé ba pare guy gi nag moom moo ci desadi te démb la ñu waroon a finaliser lépp ak lu ci mënti am daal semaine bi moom gëm naa ni euh, promoteur bi nga xamante ni moom moo tëgg bombee combat euh, dina létt amateur yi wala mu daal di leen di firi ñëpp di ci teg seen bët ba tey ci bi journalu suñu làmb la ñu daal di desani ak yéen ki nga xamante ni nag moom moo di tafa tafaatin jamono ji daal nee nañu bu moytuwul lekk dina daal di def saison blanche ba tax na nag pare na pour wàññi li nga xamante ni moom moo di cachet pour mën a am combat ci saison 2020 2021 bi nii di ñëw incha allah ndax umpalewu leen ni saison 2019 2020 mbër yëpp def saison blanche sauf yi nga xamante ni ñoom ñoo njëkkoon a bëre laataa jàngoroy coronavirus bi doon soog a ñëw ko defee rek dañuy daal di jàll ak yéen ci journalu populaire populaire nag daal di ne xëy di fësal ci xëtam gu njëkk scandale bi nga xamante ni moom moo nekk ci oto nguur gi lu toll ci quatre-vingts oto la ñu euh, prévoir woon ci atum euh, deux mille dix-huit waaye ñu daan ne finalement lu toll ci huit cent oto la ñu daal di ba tax na nag léegi oto nguur gi bu njëkk ba noir ak euh, doomu taal dong la doon doon waaye jamono ji nag dañ ciy gis yeneen couleur yu gën a yoo xamante ni oto nguur gi la ba tax na nag fas yéene nañ cee def benn jours mu yóbbu ci vaar maanaam askan bi ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a féete bàyyi di ko alaate am na ci ñoo xamante ni sax dañuy dem bay jël oto yooyu di ko jox yeneen doomu aadama ñuy doxantoog moom ci biir dëgg digg dëkk bi waaye ba tey ci biir journal populaire rek buñ ci daal di desani ak yéen fële na la ci diwaanu Touba ab kawteef boo xamante ni moom la ñu yewwaale ñu daal di koy def à la une benn waay bu ñu woowee dawul xare moom daal moom moo fàtt bakkanu Baye Sall mu daal di sedd guy ci saas si foofu noonu ci diwaanu Touba naka rek tiis naka amoon na fa ci askan bi nga xamante ne ñoom ñoo fa yewoo di jaale ki nga xamante ni moom moo dem te di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jugee. bu ñu ñëwaatee ci wàllum transport en commun bi nga xamante ni nag démb annoncé woon nañ fi ni dañu yokk ticket tata yi na maanaam dañ koy tàmbalee fukki dërëm jàpp cent franc ba li nga xamante ni moom moo di dernière section bi mën na àgg ba six cent cinquante franc ci saa si nag ministre des transports très strict daal dina ciy teg loxoom yëgle na ni képp ku ko def rek daal di ngay violer loi bi ndax ñoom waxtaanuñ ci ak moom benn yoon waaye tey jii nag tata yi daal dinañuy def machine arrière ndaxte dellu nañu ba mu set wecc ci décision bi nga xamante xamante ne jëloon nañ ko ku ci mel ni Baye Amar nekk président aftu daal dina yëkkati ay kàddoom nee na finalement daal lépp lu ñu jàppoon daal dinañ koy bàyyi hausse des prix de transport mujjatul am waaye kii nii di xalif général des Tidianes daal dinay woolu Macky Sall ñoom ñaar ba ñu dikkee toog nag mi ngi koy waxaat mu tekk mesure yi nga xamante ni moom moo war pour mën a sauver askan bi ci li nga xamante ni moom moo di jàngoro jàngoroy coronavirus ndax moom xalif général de tijan li mu gis ci jamono ji dalul benn yoon xelam gis nañu askan bi fi yeewoo dañoo tàmbalee prendre à la légère nga xamante ni moom moo di jàngoro jàngoroy coronavirus bi maanaam nit ñaa ngi tàmbalee def lépp lu leen neex ak lu leen saf fàtte ni jàngoro bi moo ngi doxante ci biir réewum Sénégal loolu daal waral la muy interpellé waat suñu njiitum réew wax ko mu daal di jël mesure yi ca war te bañ cee xool leen ci wàllum jàng beek jàngale bi li nga xamante ni nag moom la ci journal populaire daal di fësal mooy kii nii di ministre de l' enseignement supérieur daal di ne yëkkati ay kàddoom di wax ni euh, li étudiants yi di woowe bourse d' accompagnement daal dafa mel ni dañoo fas yéene daal di koy dagg ndax nekkul loo xamante ni obligation la nekkul loo xamante ni dañ ko bind ci benn loi ba tax na daal étudiants yi defaraat leen seen toogaay te xam ne loolu moo xëy feeñ tey ci journal populaire. bu ñu jàllee ak yenn ci journalu réew mi dañ koy daal di njëkkee rek ci tabaski bi nga xamante ni moo ngi ñëw incha allah jour ju moyen la ñuy wax ba tax nag xale jigéen ñi ñëpp fireeku nañu rek bàyyi seen yaram comme ni ko kooku noonu di waxee rek fa yéenee nekk ci digg dëkk bi def mbaraan gu méttee méttee métti ngir jënd savon naturel mbaraan gu méttee méttee métti ngir jënd jees neen mbaraan gu méttee méttee métti pour jënd seen yeneen i accessoire ak batterie ñi nga xamante ni moom ñoo di seen parents yi ku ci nekk rek yaa ngi xëccoo def sañse bu rafet te ñu ci bari ci ñoom liggéeyuñ dara yaakaaruñ ko dul ci góor ñu loolu nag la journal réew mi daal di xëy fësal tey ci suba gi maanaam mbaraan bi nga xamante ni xale yi jigéen jamono ji tàmbalee nañ ko te fas yéene wuñu benn yoon dellu ci ginnaaw lu dul ni tabaski bi dafa jeex waaye li nga xamante ni nag moom la ñu yaakaaroon ni moom mooy faj ci jàngoro yu coronavirus maanaam euh, Covid organique bi nga xamante ni feeñoon na fële na le euh, ca diwaanu Madagascar président ba ñu kon ko faa génne ñu ko doon wër fii nii ci réew mu Sénégal doon xool ci ban raison la am trouvé woon nañ ko sax ca Thiès doon ko defal ay test dafa mel ni nag yaakaar daal dinay tasee foofu ba tax na journal bi nee la le miracle nargage n'a pas eu lieu maanaam daal nekkul li nga xamante ni moom mooy faj ci jàngoro yu coronavirus. dañ ko daal di jeexalee rek ak journalu l'observateur l'observateur nag daal di nay fësal moom ah, ci xëtam gu njëkk ki nga xamante ni moom moo di Djidjack Diouf nekkoon manager ah, Viviane Chidid moom daal ginnaaw ba mu amee problème ak affaire foo visa ba suñu joon yàlla tey ji ma nga tëdd ca kaso bu Rebeuss ak ñi nga xamante ne ñoom nañ ko accusé looloon tey nag mauvaise nouvelle la ñu am ci moom ndax ginnaaw bañ ko doon ñaanal liberté provisoire nekk na loo xamante ni daal di nañ koy euh, rejeté maanaam daal di jàkk ba suñu jonn yàlla tey jii ma nga ca Rebeuss daal di tëdd fii nii ci diwaanu Dakar ab kawteef xarit am na xarit amatul kii nii di Fatoumata Ba daal di nay dëggal ni daal xarit bu amee tamit bariwul ba tax na dafa recruter ay agresseur pour ñu sàcc benn iPhone 11 boo xamante ni xaritu benn bakkanam moom moo ko moom moom recruter ay agresseur pour ñu daal di song benn xaritu benn bakkanam nangu li nga xamante ni moom moo di iPhone 11 am noonu la fa demee waaye beneen drame boo xamante ni ñoo ngi koy gis ci biir journalu L'Observateur ab benn charretier boo xamante ni dañoo faat bakkanam waaye ki nga xamante ni faat na bakkanam daal nit ñi daal di nañ koy song def ko musiba maa bu kumba boo xamante ni daal urgence la daal di mujjee laata police di ñëw tey ci biir journal l'Observateur la ñu daal di dese nii ak yéen ab mystère boo xamante ni moom moo xew fële nele ci diwaanu kër ma Madiabel la foofu daal doomu imam bi nga xamante ni moom moo fay yëgoo la ñu kidnappé cinq heures du matin ba di heures la daal di ñëw na mu def boo dëcc nag kenn xamu ko waaye lu ci mënti am daal jàppale na 5 heures du matin boobu mu génnoon euh, doon euh, def ay ablution maanaam daal doon jàpp ak jox fas yi ñu naan fa lañ ko fekk euh, daal di koy kidnappé daal di koy envoyé loo message benn nijaayam ni ko waxal sama papa mu daa demee ñaanal ndax kidnappé nañ ma te fi ma nekk xamuma ko waaye ci saa si daal la ci yàlla tekk loxo lekk vers 17 mu daal di rëcc ba daal di ñëw seen kër yóbbu nañ ko nag hôpital daal di jël empreinte yi nga xamante ni moom moo nekk ci yaramam xool ñan ñoo ko enlevé woon lu ci mënti am dinañ ci dellu siwaat ci Habib Ba la ñu daal di jeexalee suñu xibaaru revue de presse tey daal di xeex ak benn ñesu euh, jabaru papaam ñoom ñaar daal di nañuy gaañante gaañante yu méttee méttee méttee ba xeex boobee daal la polisu jëppal la daal di ku ci nekk daal di porter plainte sa moroom ba ñu demee nag mettre ci en garde à kenn ci ñoom waaye lu ci mënti am daal gaañante nañu gaañante yu méttee métti te lu waral coow li du lenn lu dul affaire Dieyna. kooku moo ko provoqué ci affaire u naa li nga xamante ni day naqari xolu Abiba naka noonu rek la ko songee daal di koy faagaagal moom tamit daal di faagaagal Abiba coow boo xamante ni nag police bàyyi nañu mu sedd waaye jamono jii dafa mel ni rek journal yi ak journaliste yi bàyyiwuñ ko mu sedd parce que indi nañ ko alaat la une mbokk yi dafa mel ni fii la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru revue de presse di leen jaajëfal te di leen jox dig daje bu suba incha allah.